الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله <coughs> ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون الأكارم فموضوعنا اليوم إن شاء الله هو العناية بتربية الأولاد أقول بالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون أيها المسلمون قد سأل الله سبحانه وتعالى أن ودع لنا الأرض وما عليها والسماوات وما فيها وقال يا معصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إن الشباب أيها المسلمون هم عماد كل أمة وأساسها فهم قائدة سفينة المجتمع نحو تقدم وتطور ونبذ الحياة في عروق الوطن وللشباب قدرة وقوة وطاقة والحياة تؤهلهم إلى أن يعطوا أعمالهم وجهودهم وعزهم وعزمهم وصبرهم بالثمرات الناتجة وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أقول قولي هذا وأستغفره وأتوب إليه إنه هو تواب الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسلم وبارك على الخلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم وعلى جميع الأصحاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله مبقي ñu ngi dalawaat على باخ bu baax moom mi nga xam ne moom la neex ñu fekkee biñ julee ajuma bi passé bala ñëwaat fekk ñu ñu jóge moom la neex moom moom mu defaluñ ko dara loo xam ne moo tax mu bàyyi ñu ba tey bu ko neexoon jëlee nañu fi bu yàgg ko neexoon mu bind ñu def ñu leneen loo xam ne du nit ba moom la neex mu def ñu li gën ci li yàlla bind yëpp moo ci noo ci gën masalan doomi aadama moom la yàlla may bu ko neexee mu jël yëreem fóot ko ba set mu paase ko sol ko gome ko sol ko bu ko neexee buy lekk bu ko neexee mu jël kuddu bu ko neexee mu togg li muy lekk togg koom ñor waaye bu ko neex mu raxas ay loxoom lekk waaye yeneen rab yi fi nekk yépp kuy lekk da ngay lekk loo xam ne dafay tilim am na koo xam lu nëb lay lekk lu xesew lay lekk te gënuloo ko yaa moom am képp mbindeef ngay mbindeef danga nekk nit mu nekk rab waaye ma wax ne kullu insaanun xaywaanun wa laysa kullu xaywaan insaan nit koo gis rab la waaye nekkul rab bu nekk nit la ma ne nit koo fi gis rab la kullu insaan xaywaan nit ku nekk rab la wa sa kullu xaywaan insaan waaye rab yu nekk duñ nit boo sëggee nga dox rek mel ñoom bi séem amulee bëri wute waaye yàlla moo teraangaal jox la nga am xel boo buggee lekk nga togg nga lekk boo buggee sol nga fóot nga sol keneen ki yaram yi neen lay doxee ci biir ci biti am na koo xam ne buy génn yaram yi neen lay génnee waaye yow booy génn looy def sol yére lu tax yàlla moo la teraangaal soo seelo suñ mag yi suñ maam njëkk ya da nga daa gis kër goo xam ne benn mbubb benn yére la ñuy am benn yére ku boo génn moom ngay sol koo xam ne amuloo génn loo looy def takk sa takk malaan ci sa ndigg li jeex na tey yaa ngi am armoire ba mu fees santal yàlla bu baax waaye yaa ngi am yére yu doy di sol lu set bon loolu doyoon sant yàlla mbokk yi yàlla mu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla maa leen dénk ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla yonent yàlla Muhammad mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na baat boobu de moo ko màggeetloo ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla yonent bi nee na moom xamoon dëgg dëgg-dëgg ragal yàlla na la am loolu moo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ci Makka juróom fukki at ak ñett fukki at ak ñetti yëpp mu ngay oote di wax ne nañ bokk wax ne laa ilaha illallah arab yi bañ ñu ne duñ ko def benn baatab laa ilaha illallahu muhammad salaa salaam oote na ko fukki at ak ñetti biir makkatul mukarram ñu bañ dóor nañ ko xas nañ ko dóori saxaaba ci wax rek ne amul benn buur ku dul yàlla ñu ne duñ ko def lu tax ñoom xam nañ ne xam nañ lan mooy baatab la ilaha illa ñun nag faale ko sax ñun faale wuñ sax baat laa ilaha illa du dara ci ñun du dara bu la neexee sax nga ñëw wax loo xam ne dëgg nga ne billahi wallahi tallahi da wax loo dëgg nga xam ne wax loo dëgg ana imam ana islam ana islam islam diine dëgg la al islam diinul xaq islam diine dëgg islam diine la boo xam mooy diine dëgg amul leneen lu fa nekk lu mooy dëgg mbokk yi yàlla nee na yéen ñi yàlla ragal leen yàlla ngeen wax lu jub wa quulu xawlan sadida wax leen lu jub bul wax lu ko lu dëng soo ko defee yàlla dana la defaral sa jëf yuslih lakum amalakum yàlla dana la defaral ngay def lu baax wa yaxfir lakum zunubakum mu bàlle seeni bàkkaar yàlla nee wa man yuti allaha wa rasuluhu faqad faaza fawzan aziman képp koo xam ne nangu naa topp yàlla toppul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku day jekku na yawmal qiyaam kooku day yawmal qiyaam dana jekku dana jekku mooy fawz fawz mooy texe texe mooy nga jekku mooy amuloo benn problème lu mooy fawz koo xam ne nangu ngaa gëm gëm nga yàlla topp nga yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam lim la digal nga def ko li nga bàyyi ko yow day jekku nga yawmal yàlla nañu loolu mbokk yi ñu ngi seene amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla waaye ñu gëm ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni mbokk yi suñu xutba gi tey ñu ngi ko teg ci delloowaat defaraat defaraat suñu njaboot <clears throat> nañ defaraat toogaay yi toogaay yi nañ ko defaraat mooy yaraat doom yi xale yi nañ leen yar nañ defaraat doom yi defaraat toogaay yi yaraat doom yi parce que eh, yàlla dañu fi indi pour ñu defar mewah a yàq may wax di ñaan yàlla ndimbal di wax ne bismillahi yàlla nee na ayuha ya amanu ku anfusakum yi ñi gëm yàlla bob leen seen bopp ak seen safara xuu anfusakum wa alaykum nara moytu leen seen bopp ak seen njabooti safara safara boo xam ne waquuduha naasu wal hijaara safara boobu matt bi koy taxal doomi adama lay doon matt ma nekkul ay bant nit la nit wal hijaara ak ay mountain waquuduha naasu wal hijaara safara boobu ay xeer a koy lakk moo koy lakk ak ay mountain wa iddat lil kaafiriin dañ ko préparé pour ñi nga xam ne gëmuñ yàlla te malayka eh, safara suus alayha malaikatun xilaasun shiddaadun laa yaasuuna allaha ma amarahu safara boobu boo demee dafa am ay ponkali malayka malayka yu rëy ponkal guddi rëy nga xam ne bu ñu la waxee defal nangam da ko def soriwul fi may too ngi nii prison baa ngi fii soriwul am na fa police fa nekk yoo xam ne kuñ fa indi ku mën a doon soo wàcc ci moto ñu la fii ngay dugg da nga fa dugg bàyyi foos te fii àddina la bon bu la yàlla waxee ne am naa safara boo xam ne ay ponkali nga fa nekk war ngaa gëm loolu alayha malaikatun yàlla mu ne maa ngi fa am ay ponkali malaika xilaasun shidda dañ ponk dañ soxor la yaasuuna allaha ma amarahum li leen yàlla wax nañu def ko loolu la ñoo def way yafaluuna ma yumaruun li leen yàlla waxee loolu la ñuy def def leen ko bàyyi fa ma waxal la maytoo ngi nii kuy fa mën a yóbbu koo mun a doon boo demee ña nga fa fekk police fa nekk li leen nguur gi wax si yow loolu lañ lay def neex la naqari la bu la yàlla waxee ne maa ngi ko am nga bay sa xel xel bu baax mbokk yi eh, mbokk jullit yi yàlla moom la neex mu jël suuf si defar ko ba mu baax teg ñu fi suuf si yàlla moo ko moom defar na ko indi ñu fi teg ñu fi ñu ne ñu ne nañ fi nekk ci jàmm nañ dund ci jàmm moo defar suuf si def fi li fi nekk koñ bu nekk. la ñuy dundee mu fa réew mu nekk lañ war dundee mu ngi ci réew ma réew mu nekk li li ñu war a dundee ñoom réew mi li ñu war a fajoo mu ngi ci suuf si yàlla def asamaan tiim la def fa asamaan bu ba mu rafet def ay bidiw ba mu rafet pour lan ngir mën a am jàmm mu fa def ay weer ay bidiw zëyyat mu defe ko mu rafet ak ay ay bidiw eh, mbokk yi bi waxee loolu pare moom yàlla subhanahu wa taala bu def lee lu pare mu ne yaa maasara insi jinde wal ins yéen mbooleem jinde yi ak nit yi yaa maasara jinn wal ins yéen mbooleem jinne yi ak nit yi in istataatum boo leen munee an ngeen naaw min aqtar sama waat wal ard kaw asamaan ak suus si yëpp fu leen mën a neex fu ngeen bëgg dem dem leen yàlla moo ñu ko may yàlla moo ñu may fu nit bëgg dem dem am na fii jógee ko suuf si fii dem seeti weer am na fi pléne yaa ngi naaw ci kaw gi yàlla mu ne in istataatum an tanfusu min aqtaari samaawaati wal ard fanfusu dem leen waaye ngeen xam ne nag laa tanfusuun illa bi sultaan fu ngeen mën a dem man yàlla maa ngi fa bay leen seen xel ci foo mun a dem yàlla nga fa ñi dem ci kaw léegoo léegi ñoo am yu rëy ci kaw ci kaw asamaan dem foo xam ne da ngay dem ba mu yàgg rek am loo dàqee loo xam ne doo xam lan la dàqee la yow sa yeeg sa plaine ba nga amee woon dàqee la dàqee bu rëy daw da nga bëgg a dee soo taxawee mu rey la bu ko a wax ne ci kaw gi dafa garaaw lool gis nga suuf sii li fi nekk yëpp fii moo gën a garaaw fuuf yàlla wax na ne bu njëkkoon day balaa alxuraan doon ñëw jinne yi dañ doon dem di déglu ji mala yàlla ak malaayika bi di waxtaan wa kunna naquudu minha al la sama ñu ne ñu ne dañ daan dem foofa ca yàlla di déglu li ñu daan wax yàlla di wax ak ak ak malay ak malayka yi waaye léegi fa dem fa ma ne sabil aana yajid lahu shihaban rasada yàlla yàlla nee na léegi fa dem safara lakk la ñun nag dañ ñàkk jàng ba suñ gisee benn biddiw biddiw bu ne tuur ñu ne ah am na ko gaañu biddiw xamul ku gaañu biddiw safara day lakke soo gisee biddiw bu daanu nga ne ah tey de kilifa na gaañu biddiw xamul fu gaañu loolu loolu caaxaan la li xew mooy dafa am foo xam ne ku fa dem safara lakk la safara soosu mooy biddiw yooyu safara la biddiw yëpp ay safara lañ jumi safara la wa kunna naquru fa man yastami'il aana yajid lahu shihaaban rasada yàlla mu ne ku fa dem léegi safara lakk la ku fa dem léegi safara lakk la mais mbir mi demeekul noonu léegi dafa soppeeku mbokk yi yàlla nee na yaa maasar al jinn wal ins in istataatum an tanfusu min axla samawat wal ard fanfusu laa tanfusuuna illa bi sultaan fu ngeen mën dem fekk ma man yàlla subhaana bon mbokk yi inna shababa al muslimun hum imaadu kulli ummatin wa asaasuha ma ne ndaw yi xale yi yu góor yi ak yu jigéen yi ñoom ñooy piila si réew mu àddina bu réew moo dem dëkk boo dem piila ya fay doxal yu koy téye xal la war a doon piila yi imaadul umma mooy piila yi téye dëkk bi téye piila yi téye réew mi dafa war a nekk ndaw mag mënu dara mag mënu dara ñun nag am nañ problème lool ba nga xam ne soo demee ci liggéeyukaay yëpp mag ñay liggéey xale yi toog mag ñu bari da ngay xey fajar yaa ngi ci di uti moto yooyu dem liggéey sa doom yaa ngi tëdd sa kaw seen kaw la di nelaw xam ngeen ko du dox du dox lu tax ñàkk yar njaboot gi ñàkk yar njaboot gi aussi problème da nga am sa doom yow paa bi yow mag bi yow maire bi yaay yi moom mu tëdd di lekk ba kañ ba kañ bu eewoo di taxawal dog ci mburu bu mu lekk li la du jàmm du jur jàmm du jur jàmm mukk yow mag bi yow paa bi yow meer bi yaay xëy dem liggéeyi doom ji tëdd ci néegam di nelaw ba te na ko mu jóg ne ndax amul leen fi ndagg ci mburu luy jàmm la luy jàmm la du sotti du sotti nañ nañ defar nañ defaraat njaboot moo wax ne réew mu nekk dëkk bu nekk kër gu nekk pii la ya ko téye di ko doxal ndaw la war a doon fahum xaaidatu safinatul mujtamaa bu fekkoon ne àddina bi gaal la gaal la tey gaal la bon capitaine bi war doxal gaal bi xale la war a doon ndaw la war a doon ndaw la war a doon waaye ñun nag dañ ko def paay moo tax du sotti du sotti nga gis ne dem nañ ba sax lu bari ci biir dëkk bi sax kana koy doxal koo xam ne dafa dem liggéey ci nguur gi ba nguur ne ko bëggatu bëggatuma la bëggatuma la pension naa la kooku moo doxal yëpp ci dëkk bi ci biir dëkk bi biir dëkk bi yëpp nag seet gis ngeen ko biir dëkk bi yëpp liy dox yëpp kana koy doxal màgget yi nga xam ne dañ liggéey ci nguur nguur ni la bëggatuma la pension naa la soxlaatuma la te defee téye màgget gi rek di yuuxu rek di nodd di yuuxu rek la ngeen doon benn baat baaxul ci benn baat baaxu ci benn baat bu ci baax parce que xamuloo xamuloo ko doxal si dëkk bi toog dañ ngay dégg woo woo woo ba sonn dara baaxu lu taw lu ko waral mooy ba nga ca tolloo defoo ko woon danga nga liggéeyal nguur bañ pension la nguur ne la demal bëggatuma la nga dem yuuxu ci jàkka ji lu sotti bokk bon ndaw moomu moo am doole moo am kattan moo am pexe pour dimbale dëkk bi bu ko yàlla may dund mu am góorgóorlu am dogu am muñ kooku mooy indi ñam bu nit ñi lekk ci dëkk bi wax naa fi ma ne laa dëkk bi réew mi yi àddina bi yëpp bay la ñuy dundee bay la ñuy dundee bay dañuy bay pour duñ dundee Afrique yëpp ñu ngi toog di xaar yu Ukraine ñàkk fay raw ñàkk fay la ma wax la ne Gambia fii génnal àll ba nga ne ñaar fu nekk nga am tool xàll pour bay kenn du bay kenn du fi def dara toog toog ne lan Amérique eh, eh, naka réew ma Ukraine ak beneen réew ma ñu ngay xeex ban maalo du am ci dëkk bi ma wax ne maalo na seer bàyyi foofu mu seer lu tax du tax ñun ñu fa war a béy nanguñ koo béy xoolal ma wax la ne benn saako maalo mu ngi jar bi gën a yomb mu ngi jar thousand five hundred tey benn saako du lu lu ma jar dugub benn saako lu ma jar two thousand five hundred fu ñu ko fu ñu ko jëlee fii dëkk bi ngay malo du cher dans cher bi xolal ma dugub malo bi soo ko jëndee koy def dem baxal ko ñew lek ko mu jeex dugub nak dang ko lam dang ko soxa dang ko wal dang ko moñ dang ko susal nga dor ko mëna lek lekk te moo gën cher ba léegi nga malo maalo du cher fay cher malo la cher ta ñak cher il faut mu cher parce que fi la war joggé joggé wu fi il faut mënta ñàkk cher bokk bon njabor gi nañ ci taxawaat dimbale leen ngir ne ñoom ñooy ñoo xam ne ñooy defar dëkk bi ñoo ko mën defar ma wax la ne la su fekkee da am sa tool tey yow am nga tool garab bi fii am naa béykat yi for yaa ngi fii noo koy def jël sa garden bi fenn su ko ba mu baax fenn su ko ba mu baax lu tax bugguloo benn nag dugg fa wala benn xar wala benn béy yàq la fa ci biir wala amuloo kenn doo nangu mukk xar dugg fa béy dugg fa nag dugg fa yàq li nekk ci biir gardin waaye sa kër nag moom mooy sa gardin da ko bàyyi ku mu neex mu dugg ku neex génn pour lan da bàyyi sa kër mu ubbeeku neex dugg ku mu am ñàkk fayda na ba nga xam ne danga am say xale yu jigéen xale yu góor yi fa dugg di génn nga xam ne liñ fay ut nga leen seetaan ci loolu du baax du sotti du du baax mukk du baax mbokk xale yi. ñoo amee dëkk bi ñoo amee réew ma bëgg a wax ne il faut nga jóg taxaw toppatoo sa tool boobu sa garden ko toppatoo ko pour li nekk ci biir garden bi baax bon sa kër tamit noonu la mel sa kër boo bëggee mu baax danga ko toppatoo ku fay dugg na dugg lu leer buy génn mu génn ci lu leer waaye nga nekk nga nekk borom kër xale bu góor dugg sa kër génn jox la ab five dalasi ab ten dalasi fifty dalasi nga nga nekk kii dafa baax baax dana dafa dafa baax ma bëgg a wax ne doomi aadama yi dañu xaaj ñeenti xaaj nit ñeenti façon nit moo am bi njëkk mooy nga xam ne al awwal sumal awwal ki njëkk njëkk njëkk mooy koo xam ne nit koo xam ne dañ koy jàngal yar ko xale boo xam ne dañ ko jàngal dañ koy yar kooku la réew mi bugg koo lay soxla koo xam ne dañ ko jàngal dañ koy yar ci lay soxla kii mooy koo xam ne moo war a defar àddina bi mooy defar dëkk bi mooy defar kër gi mooy defar réew mi koo xam ne dañ ko jàngal dañ ko yar ñaar boobu mooy ku njëkk ñaareel bi koo xam ne koo xam ne dañ ko jàngal waaye yaruñu ko ñoo fees maay tuuti koo xam ne jàng ba fees delloo xam-xam waaye amul yar ñoo fees maay tuuti faale fu ñu lekk àll jàmm faale ñu dara. ku ñu jàngal yar ko kooku lañ soxla am na koo xam ne dañ ko jàngal yaruñ ko kooku saay-saay la moo feesa maay tu nga mag koo xam ne dañ ko yar jàngaluñ ko mbaam la dañ ko yar ba jàngut kooku xamul lu muy def dafa yaru yar am na yar waaye xamul fu mu na koo xam ne nag jàngaluñ ko yaruñ ko kooku rab la du nit am na koo xam ne jàngaluñ ko yaruñ ko kooku bàyyi ma la kooku moo xar yeeg béy yi sépp bayuñ dara moo borom xam-xam ne law la tuqaa abdun lil hawa kalafan bil badni wal fardi misla tayri wal xanam su fekkoon ne nekkut ragal yàlla moo nekk ci dëri doomi aadama doomi aadama da nekk comme mbaam yeeg xar yeeg béy yeeg nag da ngeen koy gis jumaa ji gis ngeen góor duwal fii jigéen te fii duwal fii jigéen lu tax moom mbaam xar yeeg nag ñoo em képp lu tax jàngu koo xam ne jànguloo yaruwuloo yow mbaam sax moo la tamit koo xam ne lay yar jàngaluñu la xamoo looy def koo xam ne lay jàngal yaruñu la yaa feesal maayut kuy soxla mooy koo xam ne dañ ko jàngal dañ ko yar ki leen soxla bon mbokk yi nañ jugaat taxawaat tànk tànk tànk yu dëgër defaraat toogaay yi niñ toogee nañ ko defaraat nañ defaraat niñ toogee ma ne bon kooku mooy ñeenteel bi mu wax ne xale yi ñoo amee dëkk bi yontu yàlla muhammad day sallallahu alayhi wa sallam dafa yor ne sax dafa yor ay saxaabaam dafa ñëw nekk makka makka mukarrama saxaaba yi ay mag la ñu woon nekk ak la yu ndaw ay mag la ñu woon waaye daf leen yar ñu nangoo yaru di jàng alxuraan di ko mokkal di ko mokkal lool na di ko xam lool te ay mag lañu woon waaye terewul dañ nangoo yaru ñu ne suñu ndaw tey ñu ci gën a bari parewuñoo yaru parewuñ ko parewuñ ko parewuñ ko barki démb rek maa ngi génn gis benn xale bu jigéen boo xam ne lam sol kenn xamu ko mu ne ma salaamaaleykum mu ne ko maaleykum salaam taxawal mu taxaw mu ne ko yow lii nga war a sol yow lii nga war a sol bu fekk li ngay sol bu ma nuyu man soxla su ma sa nuyu barki démb rek barki démb démb moo ci teg ak tey xale boobu nga xam ne moo sol lu bon loolu mu bàyyi baayam ci kër gi ak yaayam ci kër gi nga bàyyi sa baay sa yaay ci kër gi ngay def lu mel noonu ñu lay seetaan loo sa góobee garal loo am jëlal loo am jëlal te billaahi da nga am da nga jël sa wàll da jël sa wàll xoolal suñ ndaw yi tey xale bu góor bu ndaw moo dem am doom feneen xale bu jigéen bu ndaw moo dem am doom feneen yow doo rus nga am gàcc nga jekki ba nga nekk mag nga weex ak ba jaaw doom ñëw sa ko nuyu la nga xam ne doom jii dama doon saay-saay ak yaaya doo rus loolu islam nanguwul loolu duñ ko nangu dafay jaxase xeet day jaxase famille day jaxase deret islam bëggul ko ndax rus loolu yi nga jekki ba nga xam ne génn nga àddina yàlla def nga am xaalis lool bari xaalis bari xaalis lool nga génn àddina doom yi toog war a séddoo alal bi ñu ne kii bokku ci alal bi kii bokku ci duñ ko sédd lu tax lu tax xam nga li ma wax ñu war a seddoo alal bi doom yëpp toog ñu ne kii moom bokku ci te bàyyee ko jur parce que problème la li ko waral mooy bàyyee jaar fu mu jaar gàccee la goo xam ne du jeex ci àddina mukk ba yomal xiyaam du la fay toog bon mbokk yi yonent bi dafa yoroon ay saxaabaam yar leen lool ku mel ni abdurahman ibnul awf yonent daf koy yar abdullah ibnu omar abdullah ibnu abbas zeyd ibnu xaaris yonent daf leen yar dañ nangoo yar ma bëgg a wax ne fi àddina bi àddina bi koo xam ne da nga jaar fi yàlla soxla da nga am ñaari ajjana sa àddina dina neex yemul xiyam dina neex waaye koo xam ne fi yàlla soxla bëggoo fa dara fii du neex fa du neex ba nañ ci bàyyi xel bu baax ban mbokk yi nañu defaraat toogaay yi nañ defaraat toogaay yi nañ defaraat toogaay yi yaraat njaboot mbokk yi yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk na Makka di oote fukki at ak ñett loolu lay woote baatab laa ilaha illallah tawhid lay oo tawhid benn rek ñu ne laa ilaha illallah arab ne ko duñ ko wax mukk mu ne leen wax leen ko ñu duñ ko wax coow li yëpp loolu la woon coow li yëpp mooy wax leen laa ilaha illallah ñu ne ko duñ ko wax bu doon léegi kay soo ma ne laa ilaha waxal laa ilaha man laa ilaha illallah mu jeex coow lu jeex waaye dama lay wax du ma ko du ko wax nga ne ma wax ko man du ma ko wax ñu xeex gorante ay jaasi waxambaane gorante ay jaasi waxambaane wu tey boo téyee yar mu daw ñooñu dañ daan téye jaasi nga téye jaasi ma téye jaasi may la waxal li nga ne ko du ma ñu defante kenn rey kenn rey moroomam léegi-léegi bu dee tey la tey yar waxambaane yar boo ko duree benn yar ñaari yar mu wan la gannaaw mbokki doona waar yonte yar ay doomam ay njabootam lool e ñu foor lool góorgóorlu ci diine ba nangul yonte yàlla ma sala salaam saxaaba yi sonn ci makka ñoo mu yónent bi sonn fa ba jógee fa jógee fa dem gàddaay dem dem Madina mun a war a biñ dem Madina ñu nekk fa am doole lool am junni ay junni junni nit junni yu bari jógee ko fa ñëw Màkka fekk ba ñu génnee waa Màkka dañuy waxoon ne doo leen fi fi ñëwaat doo mukk gaa yi dem Madina nekk fa am ay ay junni junni fukki fukki junni ñëw bàyyi force ci Màkka bañ ñëwee xam nañ ne mbir mi du yomb. Eh, yonent bi dafa am xel dafa ñor ku mel ni Abu Sufyaan nga xam ne borom mbooloo la woon daf ko oo mu ñëw mu ne leen ku dugg kër Abu Sufyaan def dara mu baalal leen abu kër kër Abu Sufyaan dafa fees dell yoon Abu Sufyaan ko man mën ta jël nii ñëpp mu ne leen bon ku dugg ci biir Kaaba gi baalal ñu ne déet ñu ne déet mu sa kër baalal naa la yonent mu ne leen ku dugg ab kër Abu Sufyaan baalal naa ku dugg ci biir Kaaba gi balal naa la koo xam ne nga dugg sa kër nga noppi balal naa la ba mu ñëwee ba toj ci Kaaba gi ñu ebal Ali mu dugg si biir Kaaba gi daaneel mboolem xërëm yi fa nekkoon mu nekkoon three hundred and sixty xërëm ay bant ñetti téeméer ak juróom-benn fukki bant bant bu nekk ñu ne ñu ne mooy yàlla yàlla la bañ ko génnee li ko waraloon mooy ñoom dañoo gëmoon ne soxla bu nekk dafa am yàlla boo war dem mu fajal la ko. ñu am ñetti téeméer ak juróom-benn fukki yàlla soo fekkee da nga bëgg am doom kii ngay dem yàlla bi ngay dem mu ñaan ko doom soo bëggee am jabar kii ngay dem soo bëggee am xaalis kii ngay dem soo bëggee lii kii ngay dem noonu lañu ko defee ñoom moo xam ñëw ne leen benn yàlla moo am ñu bañ Aliou génnee yàlla yu pare ñu toog ci kaaba gi yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jóg taxaw ne leen ma za tazunnuuna anni fa'ilun bikum yéen lu ngeen fooy lu laa leen def tey lu leen def tey nag lu ngeen yaakaar tey loo yaakaar tey yaa ma fi dàqee woon ma génn nga bëgg maa rey léegi am naa doole war a xeex ak yow loolu lu ngeen yaakaar ñàkk jom commencé anta aqul karim wabnu aqil karim yow de ku baax nga doomi ku baax nga sa yaay dafa baax sa yaay dafa baax ku baax nga di ko tagg di ko gërëm mu ne leen idhabu wa antum tulaqa balal naa leen sallallahu alayhi wa sallam mu jéggal ñépp ma bëgg wax ne nañ jéggalante su fekkee jéggalante amut suñ jéggalante amut duñ dugg àjjana mukk yonent bi salaam nee na ñaari nit buñ meroowee dem ba ci bunt àjjana nga xam ne si julli yëpp julli correct na or correct na aj maak correct na yëpp correct na nga ñëw ba ci bunt àjjana nga war a dugg kii war a dugg yéen ñaar jubóowu leen dañ wax ne breeg leen taxaw leen ngeen jubóo jubóowu leen du ngeen dugg bon nañ fexee juboo nañ na xol nangulante nañ nangulante li nga man naa la ko bàyyee li ma man nga bàyyee ma ko lima am nga baye mako li nga am nga baye ma ñu def ko koy borom bitik rek borom bitik xam nga borom bitik bo ñewé ci bitik bi dang koy baye xaaliss xaaliss bu mu ko laal bu laal xaaliss yow kay bo me xaalis jox mu jël waye do waye nak mom du la jox xaaliss bon borom bitik moy ko xam ne lu mu am baye ko ko lo am jox ko ngeen jubóo waye kër bu ngay jël bagage jox lu ko xaaliss kenn nga xam ci xam ba allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم إن الله وملائكته يا أيها الذين صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين